danuy ñaan yàlla rek yal nañu ko teewee déwén yu bare bare waaw ndax sëñ Saliou jaral nañu lu ne waa kër sëñ Touba na nañu lu ne wóor na yàlla ak yéen danoo kontaan démb ba léegi noo ngi ci sunu da euh, sunu sunu sëñ kër sëñ kër sëñ Saliou bi nekk yëmbal tubaarkàlla macha allah indi ay berneer tubaarkàlla nu nu kontaan ci torop sonn ci torop ndax rek jaral nu sëñ Touba jaral nañu lu ne. séddale woon bis bi. ndax Serigne Saliou la nekk këram Touba Yëmbal ñu jagale woon ko tey bis bi nu toggoo indi woon ay xéewal gaal ak jaga njaay yee taxaw noo ko fi indi ak lépp luy xéewal nu indi ko fi ngir bis bi rek ak Serigne Touba ñorlu wax dëgg yàlla tey jii démb tey li ñu daj ci mbégte ci euh, euh, masali lu ñu indi ci Masalikul Jinaan gi rek xeeb nañ ko waaye jaral nañ ko Serigne Touba jaral nañ ko. mbégte ak contentement lañ koy dundee wax dëgg yàlla ñu nekk ay murit Euh, wax dëgg yàlla it lii képp kuy jullit wax dëgg yàlla sa xel ak sa xol ak war naa sedd waaw man nag li ma xas li ma teewloo si bés bi day bés sëriñ day doon bés boo xamante ne ni dañ ko jagleel Serigne Saliou Mbacké man it ku ma xam xam ne ma sama lépp Serigne Saliou la. waaw Serigne Saliou moom day nekk koo xam ni maanaam ñun bu nu nekkee koo ñoo xam ne dañoo ñëw dugg ci nekk ci yoonu murit di fa di am nu ñu xeñtoo yoon bi. di am nu ñu mel ci yoon bi def naa lu ëpp si Serigne Saliou la ndax ñun dañoo jamonoonteeg moom ah, mu ji euh, xenc ci mu doon xenc ci moom Serigne Saliou gis si moom euh, Serigne Touba ah, di xenc si moom Serigne Touba ba lépp loo xam ne ñun gëstu nañ ko ci yoon bi wala doon nañ ko ci yoon bi rek Serigne Saliou la.